De 20 bi ak 22 bi rue 4 rue 2 ak Gibraltar gannaaw église fofu suuf la donc medina bi yëpp dajoon na xëy liggéey yu mujj ñoko ñoo Gibraltar nak amna na yuñ ci laaloon mais Gibraltar 3 depuis plus de 15 ans ñu fay def dara ba ñom nous doon une question ndax sa ci commune bi lañu bok donc il était bon sen mbedd yi metti won na loolu tamit il était bon aussi comme que quartier résidentiel la ñu def fi ben touche li gëna a touche bobu sax la leen di expliquer. parce que bi ñu waxtaanee boo war a jublu ci liggéey bi def nañu visitu Médina bi yëpp mais techniciens yi dañoo ni ñu euh, Médina il faut mu xaar parce que entreprise bi ñu ko jox neen leen bu leen laal tali yi bu leen ko defaragum parce que samay tuyaux yeggagul ça sert à nga defar tali bi suba ñu tojaat ko naan tuyaux yi yeggagul donc tey ma jéggaluwaat mbay fay moo yàq moo tardeel suñu liggéey bu dul woon liggéeyu Mbaye Faye kon jàpp leen ni Médina encore parce que dese nañu kilomètres yu bari. Medina encore doon nañu la lu bari parce que programme bi avant fi rue 22 la waroon rue 22 rue 25 rue 37 rue 31 diganté corniche bi ba centenaire mooy la 37 bi après donc lolu mo waroon njëkkal mais biñu démé de visite bi dañu né marché état du nekkaat ci kaw benen marché état dafa fekk marché mbay fay biñ ko jox tali da cee bokkaat. deug la carence entrepreneur bi. Monu nu yóbbee yéex-yéex maintenant wax na leen procédure bi somation yi dem ak yooyu ak état bi li ci def ba pare boole ñu ak FERA mu may ñu linéaire ou goudron bu yaatu ñu tàmbalee ko comme ni mu ko waxee li ci des dina gën a defar Médina donc ñuy wax population yi euh, ñi ngeen fal ak ñi leen di taxawal ñi ngi koy ñi ngi koy te lépp li nga xam vigilance lay doon ak diligence dinañ ko ci def ànd ci ak état bi donc ñu ngi féliciter maire bi di ko encouragé di ko indil sunu soutien ci liggéey bi nga xam ne dafay bokk ci liggéeyu cadre de vie war ci jàpp war ci mobiliser délégué de quartier dont l'un des éminents représentants est ici à ma droite le doyen Abdoulaye Gueye parce que loolu seen war warugar toppatoo askan wi monsieur le maire ni ñu ko defee woon bi ñu fa ñëwee def le conseil de développement à la suite de Joko ak Macky projet yi ci nek ñu ngi koy dox diko ko toppatoo maire bi état bi ministère sectoriel yi ak coordination premier ministre. c'est que nag daanu moo dajul suuf te ndar xey ñu ko defar ci ben fan comme niko ndar-ndar bi xamé eh, yeb dina yemb inshallah ñi ngi ñaan ni ñu ànd ak daal xam état bi moko def indil ñu partenariat avec le FERA. FERA bi amna na sunu ay doom yoo ñi ngi ci nek dëkk medina di ci liggéey donc loolu yëpp contribution au état bi la renforcer employabilité bi fi ci biir commune bi ñeu fekk ci li fi maire bi créé ci ay emploi ak 253 agents au Ferra yo xam ay doomu medina la ñu ngi fi. marché mbay fay marché bi ñu ko jox bu passé tuyau yi dañ ko fayaale njëgu tali ñom ñuy nak ñaari marché bi comme ko état di ci intervenir duñu mëna a légui kon pour ñu bañ perdre opportunité bi il fallait ñu jël fi mbay fay laalagul.

mu ngi doog ni pare 22 bi fi ñu toll sama urgence bu 22 bi paré, 25 bi topp ci 31 bi li jógee corniche ak fi pavé ba Blaise Diagne ko 37 ba ci centenaire bi nekkaat urgence boo gisee ma urgence mbedd yoy, il faut mu gaaw parce que rapide yi fa la ñuy jaar bus yi fa la jaar te bu mbedd mi baaxul ci mbedd yi ndaw yi la jaar te mën nañ daje yi te waruñu jaar ci mbedd yu ndaw yi moo tax tey mbedd yooyu suñu priorité la moo tax su ma déggee yenn agitation yi ma ni vous perdez du temps Bamba Fall du nit koo xam ne da koy teg pression. parce que tali Médina bi ñu koy defar gisuma ku ma teg pression lampe Médina bi ñu koy taal gis ñu ku ñu pression parce que ñun ñoo opté nekk maire suñu mission de tous les jours la te ku ma xam dëggantaan xam ne amul jour bu ma dul génn ci mbedd mi. am na ci loo xam ne ay homme d'état lañ du nekk ci mbedd mi comme perroquet fu ñu nit wax yàlla ñu état bi nangam di mbay fay nangam wax da nga koy dégg benn yoon te xam ni jaruñoo soññ ñun loolu sunu mission sunu sacerdoce la li déploré mooy nit ñi ñooy dim na war a dimbal parce que parce que nee nañu dimbal da nga siy fekk loxo borom parce que suñ la defalee si quartier tamit ba mu baax di bàyyi n'importe quel auto parce que gis naa fi ay auto les gens de clando yëpp ñëw taxaw fi yàq fi carrément yàq la belle vue du quartier kooku tamit vraiment c'est à déplorer maa ngi si woo monsieur le maire mu dimbali ñu si parce que tamit vraiment su liggéeyee liggéey bu rafet ba pare hein auto yi ñëw di garer fi n'importe quoi am na oto yi nga xam ni fi parce que man je reconnais je je sais qui fi dëkk ak ak ku fi dëkku j'ai vu plein de voitures yi nga xam ne dañu ñëw fii garé fii y a même des des vieilles voitures yi nga xam on doit les enlever mais su ma leen gisee aussi bon ça me fait mal. mbedd yi directeur AGEROUTE lu musul def def na ko sommation par huissier la jox Mbaye Faye jox ko délai Mbaye Faye tontu ko moo tax xale yi bi ñu ñëwee keroog sommation yi laa leen woon parce que jox lañ ma ampliation lettre léegi nag bu fekkee ne dem nga ba ci ñi ci ci ñi yor réew mi ba ñooñu def la ñu war a ba joxe sommation joxe ay délai nan nga bëggee nekke ci ñàkk fayda ci mbedd yi di waxati wax ju bëri da ngay xaar ba délai bi passé defaru ko mbay fay tamit d'accord na ko defar ci biir délai yi ci biir hivernage bi nen day commencé donc lan ngay waxaat da ngay xaar ba délai yi passé moo tax ñi naan dañuy taxaw ci mbedd mi wax mais nañ dem waxe mais man kilifa laa am na lu ma moomul

parce que tamit d'accord su maire defaree yéen la war dimbali yéen la bëgg vraiment ngeen jël seen matukaay taxaw am na ay auto yi nga xam ni waruñu fi taxaw su ngeen xamee ni ñii dëkkuñu fi da ngeen taxaw ngeen leen ñii dëkkuñu fi ñu dem seen yoon. wala su fekkee tamit enfin fi euh, la ñu dëkk di jël ay 4 4 di ko fi indi yéen a war a bañ loolu. Il y en a taxaw ni d'accord ou non, parce que c'est nos quartier bon on est en train de le faire Gibraltar quartier presque je peux dire que c'est un quartier euh, résidentiel quand maintenant euh, on ne tolère plus certaines choses Il y a des màgg qui sont fi garé wala seen ay xarit di leen wax ni ah, on n'est pas d'accord. Riverain, riverains yi dimbali aussi. si. xam nga ni Medina amul ci responsabilité xam nga ni ba ñu waree defar tali defar naa tali Médina ba mu des tali xam ngeen ni biñ ciy jublu waa Medina solution ci loolu solution parce que 6 milliards bu ko pour mbedd Medina yi canalisation bi dox kañu ko jox dem ba indil ñu jafe-jafe ci liggéey xam nga ni responsabilité. biñ ko man joxuma ko mbay milliards fayuma mbedd commencé defuma ci lenn kon xam ngeen ni mairie Medina amu responsabilité victime la donc amuñu doole defaraat lépp état moo ko mën a defar a ki mu joxoon marché bi comme que nag boobu ba léegi munu maa def saa yu ma xëyee ci premier ministre wala ci ministre nangam ne ci mbedd mi wax mais jàppal ni mosuñoo toog mosuñoo may une minute li ma dul nangu nag mooy nga tëdd sa kër ñu yàgg a defar Médina gisuñu la yàggal taali lamp gisuñu la defar tali Médina ba ñëw taar gisuñu la tey amatoo motifu politique nga bëgg a politique loo xam ni xam nga ni du dëgg doo désinformer kenn du ma may kenn mu mel ne dafa maa teg pression mu ngi liggéey maa ngi nii defar tali Gibraltar yi kan moo teg pression kenn noonu lañ defee woon tali Médina yi li yéexal tali Médina yi jógewul ci ñun parce que tey jii am naa partenariat boo xam ne ak FERA mën naa defar mbeddu Médina yu bari pour bañ a taxaw moo tax ñu njëkkee fii parce que ñoom may nañu yeneen kilomètre de route yu ñu war a tegaat biir Médina wante foog tuyau jàll ba pare moo tax ñu interpellé Mbaye Faye jox nañ ko sommation premier ministre intervenir na ba Ageroute jox na ko sommation délai yi ñu ngi ci moo tax jarul may wax jarul kenn di ci yuuxu parce que man du ma ci jóg bu délai boobu matee nag di deful la ñu war a def man am naa fayda dina ànd ak waa Médina def la ñu war def parce que bu jaree wàcc mbedd mi ma ànd ak waa Médina ñu wàcc mbedd mi ndax am na lu ñu dul nangu suñu télé yi ñu yàq ñun ñoo ko defaloon suñu bopp wax ju bari ak wax joo xam ni taxawaalu gu bari amul njëriñ nañu amee woon fulla ba defar sunu dëkk nañu amee waat fulla ba defaree ko noonu mais li ma dul nangu yow nga dem ba yëg ni commencé naa liggéey goudron bi ñëw na entreprise yaa ngi fi nga mel ni yaa teg pression moo tax mairie bi liggéey du ma ko may kenn kenn teguñu pression sunu programme la ñuy te mbay fay joxe na dele donc tiwo mbedd mu mu pare dinañ ci teg tali incha allah loolu mooy sunu yéene te bala muy yàgg Medina lamp yi commencé nañ koo taal. ville de Dakar aussi am na programme bo xamni medina am na ci wal ci ay kilomètres de route donc japp na ne bala ñetti wër medina na dellu ci dama mu Abdoulaye Gueye délégué des quartiers de Gibraltar 1 et Gibraltar 3 fi ma content, dama am dama am contenté parce que vraiment avec l'hivernage bi ñëw taw yoyu hein pour nous bañ ko ndox di le maire nous a donné un peu plus defar dans Gibraltar 2 tout autour bon tout au long ça a été ceinturé donc je suis vraiment fier Actuellement, le lieu où je vous parle, Gibraltar 2, il a commencé à faire les travaux et je pense que ça va bientôt finir. Là, vous voyez. Maintenant, après Gibraltar 3 et Gibraltar 2, espérons que ça va être aussi Gibraltar 1. Parce que là aussi, il y a des rues. Bon, on nous avait promis qu'on va faire les pavages depuis leur Nigui mais depuis leur Mais comme déjà, l'île déjà d'Orne, bon, il suffit de faire que c'est fou pour faire nous Voilà état def na la mu war def biñu amé jafé jafé jafe suñu mbéd ba paré defaroon suñu mbéd ba paré ñun ñoo wol dañu bëgg assainissement bi état jàppaleñ ci état jël 6 milliards def ci té 6 milliards lépp 4 milliards Médina la dugg entreprise ba ko jox du état dé entreprise ba ko jox mo ci indi ay jafé jafé indi yéexaayam donc Médina mu metti ñu lool parce que loolu def 6 mois def plus de 2 ans et quelque dafa metti mais ma lañ di wax ni bañu sonné état taxawaat na parce que bima démé ci premier ministre ma seede ko. woo na directeur Azur woo directeur ONAS woo ñi mu war a woo ñëpp ñu leen Medina sonn na ba pay neen man exemple laa ci keroog may dem kër Thierno Madani ñaari ruuda cee toj kon kenn du ma wax maa gisal sama bopp ndax keroog mu mujjee dem kër Thierno Madani ci mbedd yu boñ la ñaari ruum tojee donc mu wax ko ñooñu léegi am na suivi lu Azur mosul def def na ko sommation la jox mbay fay par huissier ba pare jox ñu ampliation lu yónnee même lettre bi ONAS ñu leen liggéeyu Medina na gaaw balaa hivernage bi di sori. comme que jox nañ leen délai état def na la mu war a def Mbaye Faye tamit engagé wu dans les de les continuer ko kon soxloo ñu kuñ ciy teg pression. moom li ñit ñu bëgg laa doon def du nekk ci état du góor état état la mu war def def na ko délai yaa ngi ci passé donc Médina tey FERA programme état la donc FERA bu ñu ñëwee collaborer ak Médina di ñu defal ay mbedd ba jox ñu loo xam ne ëpp na Gibraltar dese nañu ay kilomètres yu ñu def Médina mais tuyaux yi ñu dugal te yeggagul boo ci teelee teg goudron. bu ñu essayé ndox mi te ndox mi demul dañ koy tojaat moo tax ñu ñaan ñu délai pour yeggali tuyau yooyu bu tiwo yooyu yeggee nag bala muy yàgg bu fekkee ne ndox mi dem na fa mu war a dem ñu tegaat tali bi mais tamit ñu xam ne yàkkam du tax ñu teg tali boo xam ne nii travaux assainissement bi parewul donc loolu laa doon du ko leeral di dellu gërëmaat état du Sénégal monsieur président ndax taxaw na ci ndaxte moo tax ñu am 6 milliards bi di tax gërëm tamit taxawaayu gouvernement bi di premier ministre ñam ca war a waxal waxal na leen ci di soññ Mbaye Faye di ko wax ni suñu naqar moo ñu koy yóbbee di wax ni Médina mairie bi amu ci benn responsabilité tojuñu tali defuñu lenn defaroon nañu tali yëpp donc tey état moo tax ñu mën a amaat lii ton Gibraltar macha allah te bala muy yàgg Médina lañ jëm parce que bu dee goudron tey suñu partenariat desal nañ ci ay kilomètres. mais mbedd moo xam ne nii baax na benn noppi amatul travaux rek lañ ko mën def te rue deux mooy priorité rue 25 rue 31 ak rue 37 ndax fa la bus yi ak kaar yi di jaar te buñ fa jaarul dañ mujj jaar ci koñ yu ndaw yi te wóorul a xale yi donc monsieur le ministre. mais tey bi yàlla dogalee ñun ñëpp ñu xalaat Médina ñu ñëpp ñu xalaat Sénégal bi yoonu ànd amee defar nañ ko te ba fi ñu toll nii dara ñaaw ci te jàpp naa ni dara du ci amoon nañ fi jigéen ju jàmbaare ku mënoon politique bare xadar fonk nit nekk ci daayira yi nekk ci jàng yi di dimbali miskin yi ñu tudde ko Adja Marème Anne vice présidente conseil économique social et environnemental doon ku bare njëriñ fa mu tëdd tey yàlla na yàlla yeesal yërmande ci kawam bu ñu xamanteek Ablaye Gueye mii Marème Anne moom moo tax bu nu fi amee tour ba nit ñi bëgg ñu sopp ñu ba ñu am fi ñoo xam ne ànd nañu ak ñun dañu koy sante gannaaw yàlla dañ koy sante Maram Anne ñu ngi koy feddali rek ci njabootam di ko ñaanal di ko wax fàttewuñu la fàttewuñu ko de yàlla na ko yàlla xare aljana